góoru Marème bu xamoon ne bu bàyyee manifestation yi euh, muy jàll nii la gendarme yi noppoo yor seen féexug yaram di dégg jàmm euh, toog di naan seen ataaya loolu lan seetlu démb ci manif bi nga xam ni F24 doon na ko def fële nga xam ni mooy place de nation ndax gaa ñi danoo def li nga xam ni mooy seen liggéey dàbbar ñi foofee mbooloo toj foofee rajoxe ko ba mu defub dóom bu ko defee takk dar yi wër leen di leen coytu gaa yi defuñu fa lenn lu salte loo xam ni wala lenn loo xam ni nuru naag yàq bagage jàmbur ba tax sax yoon mën leen cee fekk noppalu googee li ko waral maanaam autorisation boobee nga xam ni gaa yi dañ ko war di dàbbar ñi bu ne bu ko defee lépp di tolloo kenn bañ a tooñ kenn jomaay Faye mu ngi gundaan ndaat ci mbeddu Ndakaaru yi ndax ginnaaw bi nga xamee ni takk dar yi ah, bàyyi nañ ko ah, ci négandiku boo xam ne ah, daanaka ay avocat am ñi ngi ko doon sàkku moom mu di gone gi gone Pastef gi di ñaareelu wërngël toog na lu pat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent séngam bu nu ko bu nu ko xaymaa bu nu juumul la su bi nga xam ne moom lañ génn moom lañ ko karkaraloon daal di koy fëgg am mandat de dépôt boo xam ne moo ko yóbbu woon lii lépp waaye gone gi fi mu toll nii daanaka bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko tamit mu doxantu fi nga xam ni foofu la bëgg a dem waaye nag liñ koy tere mooy maanaam liberté provisoire provisoire bi nga xam ni moom lañ ko fëgg li ñu koy tere mënta passé li nga xam ni moo ko fa yóbbu woon kon gone daanaka bu demee dina xoolaat taxawaayam bu baax a baax bi nag dana ko jël ci beneen façon boo xam ni mooy gën a jaar yoon démb tamit mënuñu cee a ñëwaat tasaare gi nga xam ni gars yi Pastef yi ak ñi xam ne mooy M24 bu ngeen déggee ñu a wax gars yi Pastef yi ñëpp jàmbar lan waaye ku ne xam na ni mbooloo moom ma feef moo fa ñëwoon wala mbooloo ma nga xam moo nekkoon ca place de nation buñ ci génne woon maanaam Ousmane Sonko mu ci amul woon digal daanaka kon foofee mën naa am ah, picc du fa ne wala picc yooyee ah, duñ fa bari te duñ fa amum tàgg ah, duñ fa amum tàgg loole tamit daanaka am solo bu baax a baax gars yi bu ñu koy fàttee mboolee mi li muy bari bari lépp daanaka ci jëmmi kenn la nekk yeneen information ñu ngi koy togg léegi jërë ngeen jëf merci ci abonnement yi nga xam ne yéen a koy def woy leen di abonné ci seen bi